ci yenn kaay yi. ci yenn yi. El Hadji Ousseynou Elhadj leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo ñu daal di ne Macky Sall kay jamono ji li nga xam ne daal bëgg na ko jox njëgu nga xam ne ñoo nekkee ci kujéeg Sénégal bu leen ko joxee ñoom ñoo ne danañu tasaaroo yéenekaay bi dañoo ne Mamadou Lamine Diallo mii nga moo jiite rekk moo yëkkati di ko xamal ne Macky Sall kay kay li nga xam ne daal moom lay fexe maanaam ki nga xam ne daal moo war a jiite li di kujéeg yi di ko ñor moo di tàqale ñii nga xam ne daal ñoo nekkee ci kujjeg Sénégal ndaxte loolee bu ko defee daal bokk na ci li nga xam ne daal dana andi ak réeroo ci diggante ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kujjeg Sénégal borom tekki di ñoo xamal ne jiitu réew mi koy yemu ci ba mu fi toogee ba léegi maanaam daal li nga xam ne daal moo di bëgg-bëggam mooy tàqali koo xam ne yaakaar na ne daal mën nga ko àndil ay jafe-jafe mu daal lay jàpp ci kasu bi te Cheikh Bamba Dièye mel ni koy feelu di ñoo xamal ne ci vox populi njiitu réew mi koy jamono ji maanaam daal yor na ay milliards yu bëri yoo xam ne daal na ma ko amee jaaru yoon du samay kàddu kàddu Cheikh Bamba Dièye la ma nga ci yéenekaay bi di vox populi le quotidien di ñu xamal ne kay lépp loo xam ne da ko jëm na ci dialogue national bii nga xam ne daal tàmbali laajoon ko ci réewum Sénégal yéeni kaay bi du ñu xamal gi dañu xamal ne réew mi Macky Sall moom kay omniprésident maanaam daal moom moo nekk fépp maanaam daal lii nga xam ne daal ñeneen ñi ñoo ko waroon def moom njiitu réew nag moo koy def gaa di ki nga xam ne nag mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne gannaaw diir gu yàgg goo xam ne daal daa nekkoon di faju moom bu Dionne dana dem teewe lii nga xam ne nag moo di conseil des ministres bi nga xam ne moom la ñu war a amal direct info di ñu xamal ne maanaam daal réewum Sénégal ñi nga xam ne ñoo de xale yi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci nguurug Sénégal le soleil yéene kaay di ñu xamal ne maanaam daal nguurug Sénégal nag am na ci lu bëri loo xam ne nag jamono ji teg nañ ci ay jéego ko yéene kaay di ñu xamal ne ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu koom jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dékk lépp loo xam ne jëm na ci njaay ak ñenn liggéey bu am solo boo xam ne nag dem na ko waaye tamit duwaan bu Sénégal Sénégal surtout ak dëggal xibaar bi du ñu xamale maanaam daal douane bu Sénégal nekk na xamal ne journaliste bii nga nga xam ne daal moom la waxtaane ci réewum Sénégal bëri na ci loo xam ne bëri na ci loo xam ne daal ñii ci kaw dañuy nax ñii nga xam ne daal ñoo nekkee ci suuf maa nga ca l'observateur yéene bi ñu xam ne accident yi réewum Sénégal ma gën di yokk di gën di wulee ñaay xoole weeru janvier ba léegi doomu aadama yi li nga xam ne daal jot nañoo ñàkk seen bakkan ci tali bi toll nañ ci ñeenti téeméeri nit ak fanweer yoo xam ne daal moom la ñu seen seen sandar yéen ne daal ñii nga ñu eggee ne la ay eh, ca ñu xamal ne laas yéen dëggal xibaar bi duñu xamal ne noonee kay la demee waaye nag bi école bi ñi nga xam ne daal ñoo jiite l'école boobee kàddu yii nga xam ne sukkandikoo ci proviseur ba la mu wax moo di xibaar boobee daal du xibaar boo xam ne daal bu wér la waaye daal ñun daal dañoo am suñu règlement intérieur maanaam daal école bi dafa am sart yoo xam ne daal moom lay doxee bépp boo nangoo yaa xam boo nangul nga seeti feneen yéene kaay bi dañu xamale maanaam imaam Kanté yëkkati kàddu daal di ñaaw baax jëfin wii nga xam ne waa école boobee def nañ ko yi ONG Jamra nañu xamal ñii daal dañoo yeb askanu